mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen balu àq te di leen balu àq di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu boole nu ñun ñëpp jéggal sunuy bàkkaar te xiir ñu ci njub te saxal ñu ci bi jaahil abdil xadim wa isati sanadil maxdumi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi seex muhammadul muntaqa di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu kattanal ko dëgëral ko ba yéene yim am ci lislaam ci diine lislaam am ko ci jullit ñi sunu boroom àggale ko ci anam yi gën a rafet àggale ko fu gën a kawe yéene yim am ci murit gi ak murit yi sunu boroom yeggale ko ci na mu gën a kawe di ñaan ñaanal te di ko ndokkeel di ko siyaare boroom pàkk bu tedd bi muy Seex Saaliwu Ture moom it lim yéene ci lislaam maa ngi ñaan sunu boroom mu mottuli ko ca la kawe gën a kawe njort ci lim yéene ci jullit ñi ak jullit murit gi lislaam ji ak jullit ñi yéene ko ci murit gi ak murit di ndokkeel bu baax sëriñ Cheikh Touré ak mboolem ay mbokkam ay rakkam yi topp ci gannaawam ak mboolem taalibe yi topp ci gannaawam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne nii ñu ngi koy liggéeyal seen waajur di ndokkeel di siyaar kilifa yu tedd yii ak imaam yu tedd yii di leen jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tey siyaar tey ndokkeel autorité yi fi teew muy kilifa yi aada yi ñoom it ñépp maa ngi leen di jox seen wàccuwaay ak seen gëdd ga leen yàlla jox di di nuyu mboolem ku teew ci jotaay bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen wax kullu am wa antum bi xayr maa ngi leen di balu àq di leen bal àq di ñaan sunu boroom boole ñu jéggal te nangul ñu sunu koor ginnaaw bi mu ñu raxasee ba mu bañ set wicci ndax fi mu toll ku fi toog rek set nga koor day purifier day day raxas bu ñu setee nag ba noppi nañ moytandikuwaat taqaat ba keroog koor di ñëwaat bu ñu dëkkee loolu rek du ñu taq mukk kon saa yu ñuy faatu ci cet la ñuy faatoo yàlla nañu ko yàlla defal tey mbokk yi ñu waxtaane tomb bu am solo mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla ñaar yooyu sax boo ko waxee day mel ne dañ koo xàjjale waaye liggéey ba bu jaaree ca nam war a jaare day mujj soppalikook jaamu yàlla nga xam ne kon day mujj jaamu yàlla rek mooy am mbokk yi liggéey mooy tax sa àddina jag waaye tam nangoo jaamu yàlla mooy tax sa àllaaxira jag dañuy wax ne wolof yi dañuy wax ne gor dafa war a goor ci dara su bañee ñu goor ci kawam moo tax ku nekk war naa am souveraineté ci jéem a am loo xam ne nii moo ko moomal boppam te loolu lenn mënu ko ko may lu dul liggéey te loolu pilier yu am solo la ci yoonu murit muy liggéey ànd ak jaamu yàlla suñu boroom wax na ci alquran ne ay aay yoo xam ne nii day junju ne liggéey leen daa ne i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun jëf leen bu ngeen jëfee yàlla dina ko gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko gis jullit ñi dana ko gis waxaat ne famshu fi manakibiha wa kulu min risqihi wa ilayhi nushur nee na bu leen limité seen bopp de fu ngeen bëgg a àgg ci yéen la des fu ngeen bëgg a àgg rek suuf si yaatu na àdduna yaatu na asamaan a ngi fi suuf a ngi fi fépp a ngi fi bu leen limité seen seen seen seen bopp liggéey leen lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg am mën ngeen koo am sëñ Mor Mbay Siise nga xam ne jànge naa ci daaraam comme daan ñaanal boo masaa am liggéey ñëw ci moom def naa la liggéey bi na la gënal sa ndey na la gënal sa baay na la gënal sab sëriñ ndax ci ngay teral sa ndey di ci teral sa baay di ci teral sab sëriñ muy wax ju am solo ñaari réew fu ñu rawantee ci liggéey ak ñàkk liggéey la aju fan yii rek maa ngi def benn gëstu di gis ne mi 1960 PIB Sénégal ak PIB Corée ñoo tolloon PIB mooy produit intérieur brut mooy am réew la muy dajale cim at bu ko doon tëddale doomi réewam ku nekk lam cay am loolu la ñuy tuddee PIB 1960 mi ngi Sénégal mi ngi nekkoon ci 2 millions 700 ci 2022 gi 300 mille la ci dolli ko muy 3 millions Corée ña nga ca 50 millions 400 mille 50 millions 400 mille francs ci personne bu nekk loola la leen ko may mooy liggéey loola la leen ko mooy mooy liggéey fu ñaari nit rawante liggéey a fa nekk ak ñàkk liggéey wala sellal liggéey ba ak ñàkk sellal liggéey ba tey moo tax ma bëgg a jël benn exemple ci liggéeykat bu mag benn liggéeykat bu mag permettre leen ma nag ma bañ a jël sëñ Touba ndax su ma ko jëlee mën naa am ñu ne ah sëñ Touba lim man kenn mënu ko kon duma ko jël may leen ma tam ma bañ a jël góor parce que su ma jëlee góor dañ naan kii góor la bu doon jigéen du ko man kon may leen ma ma jël jigéen may leen ma tam ma jël avant indépendance ndax su ma jëlee après l'indépendance dañu naan léegi yëf yi yomb na parce que moom lañ suñ bopp indépendance yi réew yi ubbeeku na et cetera kon may leen ma ma jël avant l'indépendance may leen ma ma jëlit ku génne wut ci école Jules Ferry may leen ma ma jël ku génne ci école Sëñ Touba bi ndax ko ñu ne école Jules Ferry bi ku ñu formé nii nga mën a mel kooka mooy kan mooy soxna muslimatu Mbàkke mu Sëñ Touba exemple boobu lay joxe soxna muslim ma présenté ko présentation bu gàtt ku ne xam ne ne sëñ Touba ko jur ndeyam soxna faat tuuti jóob la tudd moo sëñ Murtala mii ñoo bokk lépp sëñ Ndaam Abdourahman Lo moo ko jàngal alquran ba mokkal bind kaamil benn kaamil waaye du xaar wa ndax ndeyam bind na juróomi kaamil sëñ Ndaam Abdourahman Lo commencé ko di ko jàngal téere yi njëkk yi te sawdu sixaar te sawdu shubaan masalikul jinaan waaye sëñ Mouhamadou Lamine Diop moo ko continué jàngal tàmbale ko ak risalatul xayrawaani ak téere yi ñu war a jàng yépp bi mu noppee mu sof ca moom it di jàng di jàngale jàngale alquran jàngale xam-xam ci lu gàtt ab tënk bi mu demee ba bëgg a dugg ci ay activité liggéey bii nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey lu mu def mooy jëli ab jàngalekatu alquran teg ko di ko fay jëlee jàngalekatu xam-xam teg ko di ko fay lim njëkk a dugg nag soobu ci mooy agriculture ci 1945 la ko tàmbali di bay la muy bay mu koy jël di ci fay ña muy jàngaleel ak di ci dimbale nit lépp lu mës a liggéey da ko dimbale waaye ci jamono yooyu ba di bay lu mat sept ans ba 1952 am na benn tubaab booba wax naa leen ne tubaab yee ñoo fi nekk tubaab bu ñu wax Kérimi doon jaay benn magasin boo xam ne ni njaayum kumpa la ko doon jaay maanaam magasin bi daal maa ngi koy jaay waaye duma leen wax li ci biir waaye dinaa leen jox ne ab jib mi ngi ci biir bu nekk état loolu daal laa leen mën a wax yi ci des nag dafa bari ba njaayum kumpa laa koy jaay soxna si bi mu déggee jib bi la xelam nàcc ne ko man bëgg naa magasin bi Kérimi waxaaleeg moom mu ne ko 200000 laa koy jaay mu ne ko awuma ko ñu biitante ba mu àgg 100000 soxna si fay ko 100000 francs ubbi magasin bi jël jib bi bi mu ko ubbee lu mu def mooy dafa dem ca tëgg ba ñu defal ko ay jaaro juróomi ceeni jaaro yu am jaaro yu mag yu dëgër mu lonk ko ci jib bi def ci juróomi machine yi arara machine yooyu benn marque la bu tudd arara bu yóbboo benn traché muy 5 mu yóbbuwaat muy 5 muy 10 te bu njëkk benn lay dañ yóbbuwaat muy 2 moo njëkk a jël oto di ko bayloo comme tracteur te boobu sous région bi yépp wala West Afrique bépp amutoon amutoon tracteur. crémi mi ko ko jaayoon sax bi mu ñëwee gis sëñ soxna si yor tracteur bi lonk ci jib bi formé ko mu nekk tracteur daf ko xool ba ci àgg mu ne ko yaa yeewu mu ne ko yaa ma gën a yeewu yow mi defar oto. loolu ñuy jàng balaaxa danañ ko xam jin si bi la bëgg a wax bëggu ko wax yaa defar oto bi waaye tubaab comme moo ñoo defar oto bi mu ne ko yaa ma génne yow yow mi defar oto soxna si ci at moomu récolté ne 30 tonnes d'arachide 30 tonnes d'arachide ci année boobu ci technique boobu mu utilisé moo ko ko mayoon soxna si gis na lii mi ngi ciy liggéey baax na waaye mu ne naa continuer mu tàmbali di def commerce benn tubaab bu bu astafurlaa tubaab bi ko jaay bi ko jaay jib bi Orliac la tudd dama jaawale Orliac la tudd tubaab bi mu doon defal commerce nag moom moo tudd Crémi Crémi moomu di ko jox ciment mu koy jaayaat di ci am di ci mën a fay daara ji di ci mën a def ay liggéey di ci mën a dimbale nit ñi loolu def na ko ay at te soxna si li taxoon commerce boobu doxoon mooy li alquran di wax ne inna alladina yatluuna kitaab allah wa aqaamu lsalata wa anfaquu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaratan lan tabu suñ boroom nee na su fekkee ne da ngay jàng alquran te bu julli jotee nga ne fa ñukk loo mën a def dem julli ji la nga amit nga di ci ginnaaw bi nga ci génnee asaka nga dimbale ci nit ñi ak ñi sonn ak ci yoonu yàlla nee na ñett yi ku koy def commerce booy def du lam kon ñiy def commerce yépp mën nañ koo jël xaj na commerce bi yàlla la moo gën a tax muy wax waaye boo ko defee ci commerce bi àdduna bi itam sam njaay du lamb mukk kuy commerce di jàng alquran waxtu julli jotee nga tëj wala nga def nga bañ a jaay dem julli ji ba julli gi ñëw àgg nga ñëw jaayaat te la nga am nga di ko génne asaka la nga am akus néew nga di ci dimbale nit ñi sam njaay du lamb mukk soxna si lu bari la daan def ci commerce boobu ba ci yàgg mujj te soxna si foo ko mas a fekk ci yooyu la nekk kaamil bi du tàggali ko loxoom bis bu set waqafam ñaar fukki isib la muy taw muy xiin muy naaj muy ngelaw mu sonn mu lu mu mën a doon dina ko jàng lu mu mën a def itam bu julli jotee mu dem julli te asaka ji du ko caaxaane te lim am lépp moom da koy delloowaat ci yoonu yàlla moo tax commerce bi defoon benn buum ci jamono yooyu soxna si loolu doyloowu ko waaye mu continuer ci beneen jéego ñëw ci lu ñuy wax textile textile mooy ràbbu defar ay yére boobu njaago yi ñoo daan liggéey liggéey bu mel noonu njaago yi ñoo ko daan liggéey mu recruter ay njaago yu bari loger leen nourrir leen maanaam di leen dëkkal leen di leen dundal dëkkal leen di leen dundal ñu koy ràbbal te soxna bi soxna si mu sàmmi ma la woon mooy design moom mooy design façon bi mu bëgg sor wi mel sor wi nangami centimètre la war a yaatoo nangami centimètre la war a gudde design ba ci nekk aw xob lay doon wala nangam soxna si moo koy defal boppam wala mu wut ku ko man assister ko ne ko nii laa ko bëggee mu defar ko couleur yi ci nekk yépp moo koy définir njaago yi ñoom rab rek lañ doon def mu di leen fay loger leen loolu ci gàttal rek créer na emploi bu bari ci diggante bay mi ak diggante commerce bi loolu taxoon na ba ci le 20 août 1960 nga xam ne ci lañ am indépendance boobu cérémonie bi ñu doon def war a wut ay napp yoo xam ne ni moom la ñuy lalal gan ñi soxna si ci ñi gënoon a xareñ ci ñi desoon na napp yi la parce que napp yi moom dafa jël contexte bi indi ko ci napp yi dafa jël logo panaka panafricanisme drapeau Sénégal ak drapeau Mali def logo pana panafricanisme ci biir defar ko ba nga xam ne bi mu présenté napp yi ca saasa lañ ko accepté loolu mi ngi ciy feeñ benn panafricaniste bu mu nekk waaye patriote bu mu nekk ci bëgg réewam panafricanisme mooy benn idéologie politique la bu bëgg a dajale africain yépp ñu bokk luñ bokk ab jëm ab jëmuwaay boole seen doole nga xam ne kon panafricaniste la waaye patriote la kon mën nañ ko roy ci moom loolu bi mu ko defee wax ju nekk day am seere parce que ki ma ko nettali doomi sëñ Moustapha Lo la sëñ Moustapha Lo wala réew sëñ Saliou Touré mii la moo sama waajur itam ay promotionnaire la ñoo bokkoon di jàng ci réewi naar ya ba muy yóbbu napp yooyu sëñ Moustapha Lo moo demoon ak ku ñuy wax Ousseynou Seck mag ñi danañ ko xam nekkoon na rajo Dakar ak ku ñuy wax Mor Mati Lo ñoo àndoon di yóbbu napp yooyu loolu tam ku nekk di góor wala jigéen war nga cee roy soxna si jéego beneen jéego ndax yooyu yépp li ñuy wax PME la waaw li ñuy wax PME la li ñuy wax PME itam soxna si yëngu na ci te mooy créer moo PME boo ko déggee mooy petite et moyenne entreprise PMI boo ko déggee mooy petite et moyenne industrie soxna si commencé nag yóbbu ko ci beneen niveau industriel parce que dañoo indi couscous marocain soxna si jël doom bi di ko xool xool ko testé ko daal ne lii de mën nañ ko defar di ko essayé di def expérimenté ba ba ba gis ne bi mu defar sax bu gënul bu marocain bi gënu ko mu daal di mu daal koy commencé defar daal di ci daal di defaraat baneen boo xam ne ni mu ngi ko tuddee couscous Touba ndax gis nga ne marocain bi dëkku fi waaye moom moo ko imité waaye mu defar loo xam ne nii fii la dëkk ñu koy wax couscous Touba mu defar couscous boobu muy loo xam ne itam employé yu bari la doon créé ci jamono yooyu te li ma la wax léegi ci panafricanisme bi ñuy dem yóbbaale na une tonne ci cere Touba boobu ak une tonne ci cere marocain boobu loolu tam dana fa feeñaat bëgg gum bëgg réewam ci noonu la la ko kenn gis ku ñuy wax Masamba Joxaane gis cere ji te moom moo nekkoon commissaire au pèlerinage moo yoroon aj gi te booba avion du dem bato mooy dem mu def ci moom commande bu jéggi dayoo la xam nga ne Makka Makka du càggee ni da ngay dem rek ñëwaat comme avion nga da nga naan la yéene cëpp bu ya booba ay weer da ngay am weer ci ci ci ci yoon wi ñooñee nag ña leen di dundal xam nga kon commande bu rëy a rëy rëy rëy la soxna si def commande bu mel noonu def na ko 1961 def ko 1962 def ko 1963 avion yi door door a tàmbalee dem te loolu lépp lu mu ci mën a doon rek da koy lépp day delluwaat ci alquran ak diine delluwaat ko ci dimbale nit ñi ku ñuy wax Pape Diouf mujj mu jël industrie ba ko yóbbu ci beneen niveau daal di waxtaan ak ku ñuy wax Pape Diouf nekkoon na directeur de la sécurité alimentaire ci jamono yooyu mu ne ko man damaa bëgg a def industrie boo xam ne nii day defar cere yi waaye ci façon bu gën a gaaw li ma xalaat nag mooy dañ ma defar projet boo xam ne nii dañ ko yóbbu Allemagne dégg naa Allemagne ñu xarañ lañ ci defar ay usines ñu defaral ma loo xam ne nii day mën a def quantité bu bari boo xam ne nii non seulement dana mën a servir fii ci Sénégal waaye day servir sous région bi mën na dem sax bañ yóbbu ko ci exporté ko ci àdduna bi yëpp. Pape Diouf moomu jël projet boobu projet boobu mi ngi nekk ci mi ngi nekkoon jamono yooyu deux cent quatre-vingts millions. te boobu dévalé wu ñu xaalis bi xam nga loolu boo ko nattaa rek nattaatee rek day ne 560 millions yoo xam ne nii jamono yooyu tegoon na ko ci taabal ji ngir ñu régleel ko machine boobu. machine boobu nag machine yooyu bi ko diggante bi mu koy xaaree Pape Diop dem Louya Addis Abeba bi mu ñëwee nag état bi dévier ko yóbbu ko Grand Moulin gii ngeen xam tey kon Grand Moulin machine yooyee fan nekkoon ci jamono yooyu. sous commande soxna may soxna musli ci la demee foofu ndax Pape Diop dem na ci état ak état la woon moom mi ngi doon toog di xaar mu ñëw ñu jox ko Grand Moulin Grand Moulin sax bañ ko joxee taxul ñu réussir ndax cere jàmbaar lañ ci daan def defe naa ñu bari mag ñi xam nañ cere jàmbaar daa mujj échec ndax cere ja packaging bi baaxutoon da doon ën mujj di ko yóbbu ci baykat yi di leen ko may loolu tam soxna si jaar na fa soxna si itam siyaaxa da daan def siyaaxa mooy di wër ci ci Sénégal fu nekk mu dem fa waaye bu demee dañ ko daan bayal ay tool waaye nu mu daan def tool bu ñu ko bayal ba jël xaalis bi ba teg ko day laaj kan moo am problème ci dëkk bi ñu ne diw diw diw diw kan moo am ngoro gu àggut ñu ne diw diw diw kan moo kan moo amee bor ñu ne diw diw diw mu jël xaalis boobu faye ko néewaana muy dem fi barab ñu jox ko fa alal joo xam ne day génn foofu nga xam ne bu demee bay dëppaat bay delluwaat Touba benn dërëm du ko yor te da daan dox di dugg ci réew mi sonn lool ngir dimbale doomi aadama yi mbiram soo ko dee wax du fi jóg ma jeexale ci wara bu mu amoon sàmmte ndax lii lépp boo ko déggee da nga naan soxna si kon daal nu maanaam kon nu mu daan dundee diineem moom jaamukatu yàlla bu mag la woon xam nga jaamu yàlla ñetti étape la dafa am jaamu yàlla ak ak ak topp yàlla ak liggéeyal yàlla jaamu yàlla yaa ngi koy defee ci farata yi li la yàlla digal topp yàlla yaa ngi koy defee ci li la yàlla digalul te yool nekk ca liggéeyal yàlla yaa ngi koy defee ci nit ñi ñett yépp la boole woon sàmm gi mu sàmmante woon sax taxoon ne sëñ Fallou ne ko yow wóolu naa la yow moom fu la neex mën ngaa dem ndax doo doyadi ci kanamu kenn loola lay firnde ji mooy dafa am këyit wu mu doon lijjanti ci ministère de l'agriculture ci jamono yooyu tubaab yi ñoo fi nekkoon wax naa la bi mu demee fëgg bureau bi ñu ubbi mu ànd ak doomam sëñ Moustapha Lo tubaab yi ni ñuy def par respect dañuy jóg jox la loxo bi ñu ko joxee loxo mu banque loxoom mu insisté jox ko loxo mu boot loxoom ne ko joxal sama doom ji loxo ndax moom góor la ngay góor man yàlla suñu borom ki ma bokkal diine tey góor sax mayuma ma jox ko loxo sàkkaaw yow mi nga xam ne ab yëfër nga te moom mi ngi ñëw di toppate projet waaye ngir won la ne yàlla boo nekkee ci dëgg moo lay jàppalee kem yàlla ay mbiram dafa xóot te am secret Moussa ak Firawna doy na ci tekkal koo xam ne nii yow moo la war a ci loxoom nga war a jaare waaye yàlla fexe ba nga yow yaa koy yaa koy élever yaa koy yar yaa koy dundal pour mu rey la suñu borom ku xereñ la bi soxna si defee loolu moom tubaab bi dafa bloqué dossier bi ndax loolu dafa mer parce que dafa yaakaar ne da ko doyalal waaye doyadulu ko da doon sàmm diine mi waaye deux semaines lañ ci teg ay directives ñëw jógee ci gouverneur général ne nañ changé direction yépp teg fa léegi ay sénégalais kañ fa teg nag tudd ndaxte mbay di taal di wël réew sëñ sëñ sëñ Amsatu Jaxate te sëñ Amsatu Jaxate moo yoroon soxna muslim loolu lu doy waar la mu jël dossier bi moom ndaxte mbay riir ko mooy soxna muslim mu ñëw ci sëñ Amsatu ne ko waaw man dama fee gis dossier bu fi yàgg te xaw ma lan la ñu woo soxna muslim mu nettali histoire bi sëñ Amsatu ne ñokket jóg daal di dem ci biir génne ab téere fëyete fëyete ba àgg ci inna dawlatan nasara tantaqilu min aydihim ila aydi gayrihim sëñ Touba ko bindoon ne nguurug tubaab yi dina mas a jeex jóge ci seeni loxo dem ci yeneeni loxo mu ne ko lii la ñu jël dossier boobu traité ko te sonn ca kon ci gàttal rek ngir bañ a guddal lu bari les mën a wax ci moom waaye lii bëgguma muy nekk waxtaan woo xam ne ne dañ naan waxtaan nañ bi waxtaan wi sa waxtaan wi neex na waxt lii may wax du ay waxtaani du ay xam-xam du ay dara ki gën a tuuti fii boo ko tegoon fii mu wax lu raw li ma wax lii ay nettali dong la ñëpp a ko man du ay waxtaan man li ma bëgg waxtaan wi mu am am impact ci nit ñi nit ñi jël ko xam ni lii amoon na en 1945 lii jigéen moo ko defoon lii ku génne ci daara ji moo ko defoon lii doomi Sëñ Tuubaa ko defoon ñu jël ci exemple ñu baari lañ nag ci réew mi ñu baari lañ ci réew mi dama cee jël kenn waaye ñu bari lañ ci réew mi ñoo xam ne nii def nañ ay jaloore yu mag a mag a mag a mag ñu jël ko xam ne lii moo ñun ñoo mën a soppi suñ réew liggéey nag mooy soppi am réew waaye toog du soppim réew de wax naa leen léegi en 1960 PIB Sénégal ak PIB Corée fi ñu tolloon ak ak ak ak ak fi fi ñu toll léegi. man Sénégal maa ngi fàttaliku amoon nañ autosuffisance alimentaire ba may jàng ca Mbakol daan nañ bay ba noppi am juróomi sàqi juróom juróomi sàqi juróom nga xam ne da ngay lekk menn sàq mi sax du jeex léegi kenn amatu ko. man bi may nekk gone daana amoon oto gaynde bu ñu naan mont bu ñu naan monté fii Sénégal kenn monteetu ko Corée moomee ñu tollooloon Kia ak Hyundai ak Samsung ak la muy defar ci ay appareil kenn xamul léegi dañuy dimbali loola nag la ko la ko la ko la ko la tax mu mel noonu mooy liggéey te bàyyi ay détails te bàyyi ay détails détails yi nga xam ne nii moo nekk ci ñut nga xam ne dañuy waxtaanee loo xam ne nii amul njariñ te ni ñuy waxtaanee entrepreneuriat bii ma fi waxtaane nii ni ñuy waxtaane yooyu ba pare di ko jéem a def di ko jéem a amal ku nekk def def noonu ku nekk bàyyi sa bopp sa sa sa bopp ci fenn bu ko defee léegi balaa yàgg rek ñu soppi àdduna ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du soppeel kenn mbiram yow yaay décider bëgg a soppi sa mbir jóg taxaw suñu borom ànd ca ndax inna allaha la yaslimu nnaasa lakinna nnaasa anfusahum yaslimuna yàlla du tooñ kenn nit ñi ñooy tooñ seen borom seen ñooy tooñ seen bopp ci tooñ gi ñuy tooñ seen borom kon loolu moo nekkoon kàddu yi maa ngi ñaan yàlla may ñu dégg ak jëfe di leen jaajëfalaat di leen ndokkeelaat di leen siyaarewaat di leen wax ne wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh